شئت فلا يصدنك عن صدق الله العظيم لم يبدو مثل المستوى محمدي إران وجار في البرايا سمدي وضلنا الإسلام والكفر معا وبالنسيئة لكل زمعا يقول بالسعي والباطن من عطاه الحكمة عن العيوب عصبا والاستقامة وسفا وعبا لبارك السعار إرسا لكل من قد فضل رعسا لبان كون المصار عيسى لكل من قد فضل رعسا مقدما فوح كل رقبة من السعار حر كل من حبا جرجف. محمد abadan dootul ñëwati wallah jërëjëf jërëjëf jërëjëf jazakumullahu xeer العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ذوي الرضوان والتمكين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته noo ngi nuyu kilifa yi ñu fekk di njabootuk Seex Seydi Alxaaji Malik Si ak kilifaam yu mag yi nga xam ne ñoo àndoon ak moom ci jihaadi lislaam ji mu doon def xool naa fi ràññee naa fi ñu bari waa Caaxo waa ak sëñ Amadu dañu Ahmadou Cissé bu Pire ak ñeneen ñu walim ñëpp waaye ñoo ngi nuyu ñëpp tey fab nuyoo di ko jaarale ci sëriñ Mbay Si Mansour muy mu jotal ko rakkam yi fi nekk ak doomam yi ak setam bi nuyoo ñoo ngi ko jële ci al aam li tariqa al muridiya sayidi almuxtaar mbakke xafidahu llahu wa mu jaarale ko ci loxoy sëriñ Bachiru mbakke mi nga xam ne moo yore kàddoom mu yabal nu fi ngir nu teewe ci bisub lislaam bi ndax ñoom amuñu lu dut lislaam bi moom la ñuy dund moom la dundal fekk fi njabootu Seex Alla ngir nu teew ci bisub lislaam bi ndax ñoom amuñu lu dut lislaam bi moom la ñuy dund moom la dundal fekk fi njabootu Seex Alaaji Maalik kazalik sunu jataay nag wax ji du gudd ndax li ñu war a wax lépp dañ koy tënk ndax ñu ñëpp nañ ko xam moo di la doxoon diggante Cheikh Sidi Alhaji Malick si ak Cheikhna Ahmad al Xadim radiallahu wa nafaana bi barakatihima lu bind la lu taarix xam la jarut di ko di ci dallu wala nga di ko faram loolaa fi ma sa nekk tàmbalee ci cheikh Mouhamadul Moustapha ba ci cheikh Saliou mu mujj ci njabootu cheikhul Xadim cheikh Mouhamadul Amin mi jëkk ci seti Serigne Touba yi jëkk fee toog ba ci Seydil Muxtaar mii fi toog loolee mosu ñoo dañ waxtu wu ne taarix dina ci nettali jaar-jaar yi nga xam ne nekk na seen diggante. Alxaaji Abdul Aziz mi meññ njaboot gi ñu teew fi ànd ak ñoom bis bi diggam ak njabootu Sëriñ Tuubaa gi amut lenn luñ ci faram-fànce ñépp xam nañ ko diggante ak bokk ak kóllëre digganteem ak Cheikh Abdul Xaadir defe naa ne taarix fàtteegu ko ndax boobu mu ñëwee Tuubaa dikkam gu réy googee julli ci ginnaaw sëriñ Abdul Qaadir wax sëriñ Abdul Qaadir na ko dama sàkku bëgg laa liqaamal mu liqaamal ku ñu ànd julli julli historique gu réy googee ak yeneen yu bare bare bare loolu yi di loo xam ne luy wéy la dama koy tënk ci Seydil Muxtaar mi nga xam ne ginnaaw Cheikh Mouhamadul Lamine moo fi njëkk a toog moo fi toog ci sët yi Cheikh Mouhamadul Lamine gis ngeen bi mu toogee doxinu mu dox ak ndaw yi nga xam ne yebal na leen fii ak liñ fi wax ak ñëw yiñ fi ñëw ah, rajo yeeg télé yaa ngi koy nettali ba tey Cheikh Seydil Muxtaar mi it bi mu toogee li mu njëkk wax mais dama bëgg tariq yëpp def benn loola moom lay doxe moom lay waxe ba fii ñu toog nii cheikh mohamad ibnul basir ibnu cheikh abdul qadir këllëri gi mu am siidi sidi ahmed mu ne ma maa fi bëggoon a teewal sama bopp waaye ay téq-téq yu waral mënuta ñëw waaye mu ne ma boo fa demee mel na ni sama jëmm nga fa nga teewal ma fa kon ñu ngi ko fi teewal ci turu magam Cheikh Seydil Mokhtar ak turu ay magam ci kër Serigne ak turu ay magam ak rakam yi mbokkal Cheikhul Xadim ak turu yoonu muridu yépp teewaay bi moom du lenn lu dul rek dëgëral la fi nekkoon feddali ko fas yéene it muy loo xam ne lii ni ko ñu jiitu bàyyee ci loxo yi su ñoom ñoo ñi suñ kanam loolu lañ ko fas yéene wéele bëgg la Cheikh Sidil Malik seqoon ak jàng naa ci ay xisa yu bari am na ci bayit yu ma gis yoo xam ni Cheikh Hadji Malik moo ñaari bayit mu wax ko sëriñ bi sëriñ bi delloo ko yeneen ñaari béy waaye yooyu yëpp nun commencé nañ ko xam jër guddal kon li nu fi indi daal mooy jokk bokk bi fedd li ko lëre gi yeesal li fi nekkoon rapport sax waxin la waaye ñu wéyal ko te ñëpp commencé xam ne li nga xam ne moom la fi maam yi ak bàyyi yi bàyyi woon ci kóllëre goo gii ñaar ñoo ñuy sosoon ko ñi dox seen ginnaaw ba agsi fii ñii fi nekk nii liñ fas yéene mooy na ko kilifa ya wéyale woon ñu wéyale ko noona mënuñu mënuñoo def lu gën a rafet waaye ñu xeñtu ca tànk yi loolu sañ nañ ko man nañ ko sëriñ Saliou daa wax na ah, ku baax boo munta àgg fa àgg da ko rawee say morom kon nag noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala

شكا إلي جبل المولى من فتن منه لما يلقاه وشهد الطبق له الرسالة وظل وجيب بلا مجادلة وقبل سند الشاة كما بي قد أنبأ الرواة عين قتادة بدون ما شفاء ردت كما كانت بلمس المصطفى والبيت قد مال مع الأركان ساجدة للمصطفى العدنان شرع جبل الإسلام قد نكست بيده وسرور العباد بالعنان كلمه الضب وأن الجمع لدى الفراق والحنين يسمع من معجزات البديع الظلماء بين الأصابع بلا بلاي أكرم اليوم قدومي الجنان زينت كذلك الحور الحسان واهتز عرش الله والكرسي لفرح والعالم العلوي وجنة النعيم والفردوس والخلد والمأوى بدون لبس جنة عدن هكذا عليون أكرم بخير الخلق يا أحمد الأمين وهكذا دار القرار والسلام ذا كله من فضل خالق الأنام جعلنا من آليات تفضلا بجاه الشافع البرايا ذي العلا جاي قبلنا قصيدة بي دونك هو في كتاب قرب benn bés muy ndékki yëkkati cër ca lu muy ndékkee jox ni ma Abdou Aziz lu ma la jox lan laa la jox ma ne ko ganaar mu ne ban cër ma ne ko laaf mu ne ma déggal akrimi man bi jaayi awtaani laafa ganaari abduhu tijaani muy bindal boobu Cheikh Ajab ay si Malick mbeew gaañi neena akrim bi man bi jaayi aqaani am Abdou Mbaye laa fatanaari abduhu tijaani ya'laman ya tafadula wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa saxaabatihi ajmain mbokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi yéen ñëpp Seydi Bakar asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu maa ngi yëkkati nuyoo ak loxo xol di ko tàllal ñépp ne mi ngi yëkkati loxo nuyoo ci xol di ko tàllal ñépp di nuyu ñépp di ziyaara ñépp di dalal ñéppit di dalal ñéppit ci ëtt bii nga xam ni daluwaayu ñépp la ci ëtt bii nga xam ni daluwaayu ñépp la dogal na nit ñi it nangu lool. ne yàlla dogal na it nit ñi nangu nañu lool. maa ngi nuyu kilifa gu baax gi toog ci sama wet. ne mi ngi nuyu kilifa gu baax gi toog ci wetam. di sëriñ Mouhamad Mamoun Bousso. Mouhamad Mamoun Bousso. di imaamu raatib ca Touba. di imaamu raatib ca Touba. ca nee dafa mel na nag nekk imaamu raatib ca Touba doy na tiitar. ndax dëkku diine bu tol noonu. ne ndax dëkku diine bu tol noonu. la fa nekk ci pas-pas ak xam-xam. la fa nekk ci pas-pas ak xam-xam. ku ñu dem ba tànn la jiital la. ku ñu dem ba tànn la jiital la. bu ñu la seetee fekk ci yow melo ya ñu war fekk ci yow. bu ñu la seetee rek fekk ci yow melo ya ñu war a fekk ci yow ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay nuyu sëriñ bi ñu ngi lay ziyaar ñu ngi lay ndokkeel ci sa xew-xew ñu ngi lay ndokkeel ci sa xew-xew dañuy wax ni Touba ak Tiwaawan benn lañ dañuy wax ni Touba ak Tiwaawan benn lañ waaye benn la bu réer ci seen biir waaye nag benn la boo xam ne mbusoo bi dafa réer ci seen biir ko ca doon jeex doo ko gis. boo ko ca doon jeex nag doo ko gis. kon nag borom kër ñëw na ci këram. kon nag borom kër ñëw na ci këram. mbokk ñëw na ci ay mbokkam. mbokkit ñëw na ci ay mbokkam. bàyyi ci kilifa. bàyyikoo nag ci kilifa. kilifa googu ci kilifa. kilifa googee bàyyi ca kilifa. ndax Sidi Muxtaar mooy kilifa ga. ne ndax Sidi Muxtaar moom mooy kilifa ga. saxal te sàmm ko yàlla na ko yàlla saxal te sàmm ko te boole ñu ci ñun it te boole waaluñu ci ñun ci mu jaarale kàddoom ci moom ka mu jaarale kàddoom ca moom muy sëriñ Bachir muy sëriñ Bachir yàlla na ko yàlla def mag te barkeel ko yàlla yàlla def mag te barkeel ko yow yàlla na nga yàgg ci kanamu jullit yi yow it yàlla na nga yàgg ci kanamu jullit yi dox seen digganteeg yàlla dox nag seen digganteeg yàlla te loo fi def yal na ko yàlla nangu. te fi def yàlla na ko yàlla nangu. ñu ngi lay dalal jàmm. ñu ngi lay dalal jàmm. dañu wax ne ganu suba ay dalal gu ngoon. dañu wax ne ganu suba mooy dalal ganu ngoon. waaye jàmbur amu fi. waaye fii daal jàmbur amu fi. ñuy sant yàlla ci sa teewaay. ñuy sant yàlla nag ci sa teewaay. ci turu njabootu Seydi Hadj Malick yëpp. njabootu Cheikh Seydi Hadj mu di sa maam nag ni mu nekke sunu maam lii nga lim ne lii nga lim danga ko tënk danga ko tënk rek waaye diggante la boo xam ne bii ku ne am nga loo ci wax waaye nag diggante la boo xam ne bii ku ne am nga loo ci wax ñu di ci sant yàlla nag ñu di ci sant yàlla nag bërki démb ne bërki démb rek yàggul sax nettali bu ma fekkee moom mii day nettali jataay boo xam ni moom fekke na ko Senghor dafa ñëw fii ci dafa ñëw fii ci Tiwaawan nuyu Cheikh El Hadj Abdoul Aziz nuyu Mawlaaya Cheikh wane ni ko dafay tàggoo si wane ni ko dafay tàggoo si ndax dafay bàyyi nguur gi ndax dafay bàyyi nguur gi ba mu toogee waxtaan ak sëriñ bi ba mu toogee waxtaan ak Moulay Abdul Aziz Dabakh dafa ni sëriñ bi nguur kenn du ko ñëdd dafa ni ko sëriñ bi nguur kenn du ko ñëdd def naa Mansour mi léegi toog ne yaakaar na sax Mansour mi monsieur Alhaji Abdul Aziz Dabakh ma nga toog sëriñ Mansour a ngi toog ne Cheikh Alhaji Mouhamadou Mansour ma nga toog sëriñ Abdou ngi toog Abdul Aziz ma nga toog ba mu ko waxee ba noppi ne moom ba mu ko waxee moom Senghor ba noppi daf ko ni daf ko ni lenn rek laa ragal lenn rek laa ragal mu ko loolu lan la mu ne ko waaw papa mu ne ko lool lan la mu ne ko diggante tiijaan ak murit mu ne ko daal diggante tiijaan ak murit ay am seen diggante ay am ci seeni diggante mu ne ko yaa leen fi indi papa Abdou ni ko waaw yow yaa leen fi indi murit ak tiijaan yaa leen tiijaan yaa leen fi indi mu ne ko déedéet mu ko déedéet mu ne ko du fi nga leen fekk mu ne ko waaw yow du fi nga leen fekk mu ne ko waaw mu ne ko mu ne ko kon sa xalaat mu ne ko kon sa xalaat faux problème la faux problème la yow kay demal sa yoon rek te bàyyi leen te bàyyi leen nii nga leen fekke woon ne Moulay Abdul Aziz Dabba radiyallahu anhu dafa am loo xam ni moom góor ga du ca maslaa la muy baax baax am na loo xam ni du ca maslaa ak bokk ak diine ak diine du ca maslaa de la ca yàlla bëgg rek la cay doxal ne sëñ si muxtaar it bi mu ñëwee dalal na xel yépp fa tabaarakallaahu ñi ko jiitu ñi nga xam ni ñoom ñoo ñëwoon jiitu ko di way juram di way juram a gën mënu leen a gën mënul gën way juram mënul a waaye nag nit ku nekk ak mayam bi mu toogee bi mu toogee moom nii nga ko waxee nii nga ko waxee rek noonu la ko waxee noonu la ko waxee na lépp di benn na lépp di benn ndax lépp benn la ko yàlla def ndax lépp benn la ko yàlla def yàlla yàlla dafa wax ci ñaari anam dafa wax ci ñaari anam benn bi dafa ni benn bi moom dafa ni xamu leen lu leen fi indi waaye man mi leen fi indi ma wax leen ko. li ma leen fi indee. li ma leen fi indee nag. moo di ngeen di ay jaam. moo ngeen di ay jaam. di wéy ci sama ndigal. di wéy ci sama ndigal. may buur may buur. toog ci sama siis. toog nag ci sama siis. wa ma xalaqtul jinna. wa ma xalaqtul jinna. wal insa. wal insa. illa li yaabuduuni. illa li yaabuduuni. loolu. loolu. yàlla nee na loolii la lu fi indee di jaam muy buur rek bi ci des nag mu ni waa nag bu ngeen nangoo njaam googii laa yukallifu llahu nafsan laa yukallifu llahu nafsan illaa wusaha yàlla nee na yàlla nee na du ma teg kenn lu ma teg nag kenn loo xam ni kookee attanu ko bala ma leen di teg dara yi bala ma leen di teg dara yi danaa leen ko xamal maa ngi leen di xamal maa ngi leen di xamal nag ni li fi xew li fi xew képp koo xam ne képp koo xam nangu nga ni maay buur nangu nga ni man yàlla may buur nangu ni yow jaam nga nangu ni yow jaam nga muy dëgg ci sa xol muy dëgg nag ci sa xol ñu di ko tuddee imaan ñu di ko tuddee imaan maa ngi lay xamal maa ngi lay xamal ni la ni la innamal muminuuna innamal muminuuna ixwatu dama la koy xamal nag santaguma la ci dara moom daal dama lay xamal ba noppi su ma la xamalee ba noppi nag sant la ca diggante booba la ma ca bëgg sant la nag ci diggante bee man yàlla la ma ca bëgg te mooy fa aslixu bayna axawaykum te mooy fa aslixu bayna axawaykum islaaxu zaatil bay mooy tànk yii rek mooy ndigal ga fële mooy kar ga jugoon rek yàlla nag wax ni. li ma defaral sama bopp li ma defaral man yàlla sama bopp. moom ko moom ko. dugal ko ci seen biir dugal ko ci seen biir. sant xamal leen sant nag xamal leen ko. sant sant leen ci li ma leen ci sant. sant leen ci li ma leen ci sant. def leen ko ni ma ko bëggee. leen ko ni ma ko bëggee. ku ko def ku ko def. boo dajeeg man boo dajeeg man. mën naa la bette xéewal naa laa bette xéewal. ku ko deful nag ku ko deful nag. wattaqullah loolee. muy dox nag Sidi Maxtaar nag jataayam ne Sidi Maxtaar nag moom Mbakke jataayam mu toogaale waa Touba yëpp mu toogaale nag waa Touba yëpp ñu toogal ko fi mu toogal ñu foofu ñu toogal ko fii moom it mu toogal na foofu benn rek rek la euh, bi mu toogee ne moom góor ga ba mu toogee li mu wax li mu wax dafa wane ni moom dafa wane nii am na lu yàlla di tere maa ngi wax ca kaw ni bokkuma ca maa ngi wax ca kaw nag ni bokkuma ca ci ñi nga xam ni ci ñi nga xam ni yàlla yàlla daf leen di tere daf leen di tere li yàlla jokkale woon li yàlla jokkale woon ku ko dog ku ko dog digle li mu digle ni nañ ko jog ni nañ ko jog tere ku ko dog tere ku ko dog teg ca la mu ca teg teg ca nag la mu ca teg Sidi Moxtaar nee na Sidi Moxtaar nee na man bokkuma ca ñooña ah man kat bokkuma ca ñooña maa nga ca ña yàlla sant maa nga ca ña yàlla sant alladina alladina yaqtauuna yaqtauuna maa amara allahu bihi an yusal wa yufsiduuna fi l ard ulaika hum alxaasiruun yàlla ci yàlla musal ah sëriñ bi. bu Sidi Muxtaar toogee rek wax lii. ne bu Sidi Muxtaar toogee rek wax lii. ñu mën ko taawil ci anam yu bare. ñu mën koo taawil nag ci anam yu bare. fa tabaarakallaahu. xew-xew am. xew-xew am. nga ñëw toog. nga ñëw toog. toogal fi Serigne Touba ci boppam. toogal fi Serigne Touba ci boppam. ndax Sidi Muxtaar ma la yabal. ndax Sidi Muxtaar ma la yabal. yabal kala yabal wala ma yabal kala yabal toogalu fa boppam toogalu fa boppam moom lu mu fa fekk lay dundal lu mu fa fekk lay dundal nii nga ko waxe nañ ko wéyal nii nga ko waxee nañu ko wéyal moom lay wéyal moom lay wéyal sosul de dafa sof dafa sof sosul sosul dafa sof ndax li fi fekk ndax moom li mu fi fekk indiwu ko fi indiwu ko fi sëñ Tuubaa yàlla la ko yàlla jaarale jaamu yàlla yi nangul ko ànd ak moom ak bokk dox ci diine dox ci tariqa nag mënu la ñàkk ndollent la ndollent la ci diggante jaam ci diggante jaam bi ak boroomam ak boroomam te yàllaa ko santaane te santaane waaye waaye li wér li wér te mënu la ñàkk te mënu la ñàkk mën na ñàkk tariqa mën naa ñàkk waaye li mënu la waaye daal li wér te mënu la mooy diine sharia ak sunna mënuñoo ñàkk loolu nag moo fi ne loolu nag moo fi ne sëriñ bi nag Sidi Bakar ne ñu bëgg lool euh, jataay bi da nga wax da nga ñaan nga ngant ne jataay bi ñaan nga ngant bëgg a wàññiku ay dog dog bëgg ndax ay dog dog sëriñ Falilu Mbàkke waxoon waaye xanaa ñu wax la la sëriñ Fadilu Mbàkke waxoon rek radiallahu anhu dégg naa dafa euh, ci kër taalibeem moom dafa ñëw gane si mbokkum taalibeem toog fa nuyonte ak ñoom nuyonte nag ak ñoom daal di tàggoo ba ni ko ah waaye sëñ bi mbir mi gàtt na di waaye kenn mënatu ko miim. mu ni ko waaye kenn mënatu koo miim. fàllu ñëw na fi rek. kenn mënatu koo miim. ñëw na fi rek. waaye yow itam. gàtt na waaye kenn mënatu ko miim. Touba ñëw nañ fi jeex na. nee nag ñu nangu sangaan ñaan yàlla ne jàmm nga dikke woon yàlla la ko joxoon de la ca yàlla dese moo ëpp yàlla na la ci yàlla jox lu dese lu ëpp la mu dese nga dem ci jàmm nga ci jàmm nag fekkaat fa jàmm ju ëpp ja nga fa bàyyi wax nga jotaloon ni suñu wax sëriñ ba wax sëriñ Bachir ni ko xew-xew bii ñoom lañ ciy ndokkee yéen ñëpp suñu bëgg asalaamaaleykum wa rahmatullah ne ñu dellu waat rek nuyoo waat àndandoo sant sunu boroom tabaraka wa jaare la cant gi ci Sidi Ahmed di ñaan yàlla yàlla nañ ko yàlla boole nangu ne fii mu toog di wax nag dafa am boroom te nag kër Cheikh Seydi Hadji Malick moo tëdde noonu nii lu ñu ñàkk ñàkk ñaar du fi jóg benn bi kilifa lay doon benn bi xorma lay doon ne te Cheikh Seydi Hadji Malick dafa wax ni xorma kat mooy yóbbu nit ca yàlla yàlla nañu bokk ca ña nga xam ne xorma moo leen di yóbbu ne mi ngi nuyu gouverneur di nuyu préfet di nuyu maire di nuyu commandant Diack di nuyu sous-préfet Seck di nuyu ñoo ñi ñu wax ni président Macky Sall yónni na leen fi di nuyu ñi fi Idrissa Seck yónni di nuyu it ñi fi Cheikh Tidiane Gadio yónni di nuyu Alxaaji Malick Sarr sénateur ne defe naa loolu la ñu bind ci kayit bi di nuyu nag mbokk yi fi dajee yépp waaye nag nuyoo bi mi ngi koy def ci turu Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour ak rakkam Cheikh Ahmed Tijani ak rakkam Cheikh El ak rakkam Cheikh El Hadj kenn ku ci nekk ci ñoom lii xew ci seen kër maam gi yitteel na leen lii xew ci seen kërmaam gi yitteel na leen dafa fekk nag ni yàlla rek moo mën a fekke lépp àddina nag balaa baax ñu nangu di wuutante moo waral ñu mën a toog yebal seen kàddu ñu jotalal leen ko bokk yi muy kàddu cant kàddu kóllëre feddali kóllëre beesaluk bokk akuk cant di ñaan yàlla yàlla nañu yàlla boole nangul di nuyu nag mbooleem ñi fi toog te ñoo ñii toog ñu jaxasoo woon ak góor gi lool nuyu góor gi alxaaji tafsir saaxo nuyu sunu baay alxaaji Mouhamadou Moustapha Sy léegi ci dafa bind këyit jox ma nee léegi rek kii dafa bind këyit jox ko limal ma ci ñu bare limal ko ci nag ñu bare man ko duma leen nuyu man ko ah, duma leen nuyu de ñoom ñoo war a nuyu nit ñi ñoom ñoo war a nuyu nit ñi ndax ñoom ñoo woote Mansour mii toog Habib mu mu Seydi Jami toog ci wetam Sidi Ahmed mii toog ne njaboot gi toog ñoom ñëpp du ñoom du ñu woote ba noppi xanaa ñu bàyyi fi nit ñi di leen jox cëri ñoom ñoo ñii yëf yi seen yëf la ci seen kër maam lay xewe yàlla dogal na ñu bokk maam ji ak ñépp yàlla dogal na nag ñu bokk maam ji ak ñëpp ni ko sëriñ Habib waxee léegi ni ko sëriñ Habib waxee léegi rek ndax Seydi Hadj Malick radiallahu anhu ne ndax góor gi Cheikh Seydi Hadj Malick radiallahu anhu dégg naa daf daan wax ni ne dégg na góor ga dafa daan wax ni doom ju ma jur doom juma ma jur te la yàlla bëgg ba santaane ko te la yàlla bëgg ba santaane ko nekkuloo ca nekkuloo ca yow moomee Malik paasewul ak yow njureel Malik paasewul ak yow njureel waaye bambara bu dëkk ca Bamako waaye nag bambara bu dëkk ca bama ko bëgg yàlla bëgg la mu santaane bëgg yàlla bëgg it la yàlla santaane bëgg yonent bi bëgg yonent bi nee na wuutewul ak Malik dara nee wutewul ak Malik dara ñu nuyu kilifa yi fi toog yëpp ne mën nañoo lim ñu ñoo baare nag waaye nag am na ñu fi toog ñoo xam ne bëgguñu ku leen lim ndax nit boo jaxasoog moom war a am loo xam ci moom waaye ñëw nañu fi toog ngir jëmm yàlla waaye ñoom ñëw nañu fi toog ngir jëmmi yàlla man kaana lillaahi moom daal ku demal yàlla toolam kaan lahu kaanallaahu lahu yàlla jox la loo añi yàlla jox la loo ci sama gannaaw ne góor gii ci gannaawam di xaj Mouhamadou Habib Sakho ne dégg na loo ci moom ne baayam moo ko ko wax rahmatullahi alayhi ni ko ni ko sa maam Ilimaan Saaxo ruq bii mu nekk ba ñëpp di ko fi fekk ruq bii mu ne ba ñëpp di ko fi fekk bi mu fi ñëw bi mu fii ñëw kenn defalu fi yàlla dara kenn defalu yàlla dara waaye mu nekkal fi yàlla waaye mu nekkal fi yàlla nekk ga di dëgg ci nekk ga di dëgg nag ci moom yàlla nangul ko dëgg googu yàlla nangul ko dëgg googu faf ko fi fekk faf fee fekk nag ba tey ba tey ku fi yendu ku fi yendu foog nga dóor sa jë ci suuf foog nga dóor sa jë ci suuf mu ni cey cey kon nag kon nag wa amma bi ni'mati rabbika wa amma bi ni'mati rabbika fa xadis yàlla jot sant yàlla jot na Habib mii Sakho moo ko waxoon loolu am na wax ji matul guddal wax ji matul guddal Habib wax na lépp nee moom mii wax na lépp coppati lenn ciy waxam rek. nee xanaa coppati lenn ciy waxam rek. waaye bàyyiwul dara ca dëgg-dëgg. waaye nag daal Sidi Bakar ne Habib Moulay bàyyi woo dara ca dëgg dëgg dëgg dëgg. li ci ëpp importance. nee nag li ci ëpp importance nag. wane bi yàlla di wane boppam. wane bi yàlla di wane boppam. ñu dëkk ci di ko gis. ñu dëkk ci nag di ko gis. kenn di ko mémoriser. te kenn du ko mémoriser. boole ko ci sa expérience. boole ko sa expérience. ba mën ko dundee ba mën koo dundee ëllëg. loolu. loolu. yàlla daf ko wax ak ñun. yàlla daf koo wax ak ñun. jàng na aaye bi. jàng na aaye bi. mu ni fang. mu ni fang. yàlla nee yàlla nee na. lu fi nit sute moroomam. lu fi nit sute moroomam. mana mana. ku suufe ba mënuloo jógit ku suufe it ba mënoo jógit mana mana maa la naj maa la naj muy rëy lool rek nee wax bi daal li muy rëy rëy lool rek la li xaaj Mansour Mbay wax nee gur gi xaaj Mansour Mbay moom it li wax dëgg la dëgg la war ci yeewu war nañ cee yeewu Cheikh Tidiane si dafa ni nee Cheikh Tidiane si dafa ni borom réew mi ma yónni borom réew mi ma yónni nee na nangam ak nangam nee na nangam ak nangam ma ni ko soo demee ni borom réew mi ma ni Cheikh boo demee nga ni borom réew mi Senghor jaaroon na Senghor jaaroon na fi ñu ni ko yaay borom ñu ni ko yaay borom réew mi mu xëy suba mu xëy suba dem dem bagage yewoon ca néegam bagage bagage yewoon ca néegam sax yóbbuwaale wu ko yóbbuwaale wu ko waxatuma la ak réew mi waxatuma la ak réew mi Abdou Diouf ñëw Abdou Diouf ñëw ko yaay borom réew ah yow kat yaay borom yoon. mu gëm ko mu gëm ko. waaye ba muy dem yóbbuwaalewul dara. waaye ba muy dem yóbbuwaalewul dara. Ablaye Wade di ñëw Ablaye Wade di ñëw. mu ko yaay borom réew mi ñu ko yaay borom réew mi. ma ni ko ma ni ko. boo demee ci ab Ablaye Wade ni ko. boo demee ci Ablaye Wade nga ni ko. li mu am ci réew mi li mu am ci réew mi. mooy yan bi ko réew mi yan. mooy yan bi ko réew mi yan. te muy dogalu yàlla te muy dogalu yàlla. ëmb bu mu yanu. ëmb bu mu yanu. lépp réew mi ngi ci. lépp réew mi mi ngi ci. mën a yanu nag mën a yanu nag. bu mu tax mu bellaxndiku. bu mu tax nag mu bellaxndiku la mu yanu. na yanu na yanu. te téyeeg ñaari loxoom réew mi topp ci. réew mi topp ci. di ko xoolal di ko xoolal. fu pakk ne fu pakk ne. ñu dindil ko ñu dindil ko ko. balay ànd ak li mu yanu di daanu balay yanu di daanu. jubal jubal. du tax nit sax fi. déedéet jubal kay du tax nit sàqi dëngali dëngali. du tax nit sax fi du ne du taxit nit sax sax sax fi lu waay mën a mel lu waay mën a mel daa fi bàyyi yàlla ak moomeelam daa fi bàyyi yàlla ak moomeelam ngeen joxante rendez-vous ngeen joxante nag rendez-vous ci bés bi Habib wax ci bés bii seen Habib wax yawma laa tamliku nafsun yawma laa tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idin lillaahi su boobaa su boobaa nag lañu ñu war ñun la ñu war ñun yàlla baaxal nañu yàlla baaxal nanu baaxalal nañu baaxalal nañu ñun baaxaguñu ñun baaxagun de dama ni yàlla baaxalal nañu dañu ni yàlla baaxalal nañu boole ñoo mag ñu baax boole ñoo mag ñu baax ba ñëpp d'accord ci ni baax na. ba ñëpp d'accord ci ni mag ñoo ñii ñu yàlla booleel baax na ma. ñii ñu ni baax na nag bare na. ñii ñu baax na nag bare na. waaye yëpp baaxuñu ca yàlla. waaye nag yëpp baaxuñu ca yàlla de. am na lu baax ca yàlla. am na lu baax ca yàlla. am na lu baaxul ca yàlla. am na it lu baaxul ca yàlla. takk rajo di way baaxul ca yàlla di tagg yonent bi. waaw takk rajo di way di tagg yonent bi baaxul ca yàlla. ndax baax na waaw taaxuraan ndax baax na ca yàlla. kon kon yi niroo bare na waaw yi niroo kat bare na de waaye yi bokk yu tuuti la waaye yi bokk nag yu tuuti la bokk fu yaakaar yépp nekk nag bokk nag fu yaakaar yépp nekk nag bu mu la tax tëdd nelaw bu mu la nelaw ndax kat ndax kat nitu yàlla yi nitu yàlla yi danañu wax ak ñëpp danañu wax ak ñëpp jëflanteeg ñëpp jëflanteeg ñëpp loolu lañ leen san loolu lañ leen sant waaye nawloo wuñu waaye nawloo wuñu kuy tëdd kuy tëdd di nelaw di nelaw ba biddanti ba biddanti te digaaleeg yàlla te digaaleeg yàlla looy fekki ëllëg waaw looy fekki ëllëg xamuloo ko xamuloo ko naagu xaju fi naagu nag xaju fi eh, alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin nee nag mu mel na nit ku ne am nga cër nit ku ne am nga cër waaye sa cër fi nga ko fekk waaye nag sa cër fi nga ko fekk fàgguwuloo ko yàllaa la ko fàggul fàgguwuloo ko yàllaa la ko fàggul mu des nag mu des nag nga yéwénal nga yéwénal wala nga yàq wala nga yàq li yàlla baaxal li yàlla baaxal nag kenn mënatu ko yàq kenn mënatu koo yàq waaye nit mën naa sàggan ba yàqu waaye nag nit mën naa sàggan nag ba yàqu ca ne fii réew mi toll yàlla wan nañu ni yàlla wan nañu ni wékki leen seen xalaat ci fi ngeen ko wékk wékki leen seen xalaat ci fi ngeen ko wékk te wékk ma ko man yàlla te ko nag man yàlla ca gannaaw ca gannaaw coow bare woon na ci réew mi coow na ci réew mi fu ne safara di fa tàkk fu ne nag safara di fa tàkk ñu ni ñu ni waaw lii waaj a xew ñu ni waaw lii waaja xew te xewagul xewagul safara di tàkk bu agsee bu agsee nan lay mel nan lay mel ñii jëndi mburu ñii jënd mburu wut saako plastique wut saako plastique dugal ko ca dugal ca mburu ma pour mu bañ a wow pour mburu ma bañ a wow ndax bu jamono naqadee ndax bu jamono naqadee ñu am lu ñu tàngal ñu am lu ñu tàngal def ci seen soos lekk waaye mu ñëw mu ñëw yàlla sotti ca ndoxum jàmm yàlla sotti ca ndoxum jàmm àddina ni selaw àddina ni selaw kenn déggul dara kenn déggul dara jeexul nag jeexul nag ñu ni des na bu mel na moom ñu des na nag bu mel na moom waaye bii ñëw a gën a piir waaye bii ñëw nag moo gën a piir ndax lu nit doon nangu ca bële ndax lu nit doon nangu ca bële daa ko bañ ci daa bañ ci bii booba ñëw booba ñëw gën a woyof gën a woyofati bii ndekete ndekete yàlla wan nañu ni yàlla wan nañu ni li ngeen di ragal li ngeen di ragal ak def def léegi ak def def léegi nekkul ci seen loxo nekkul ci seen loxo nekkul ci loxo ñi ngeen di yaakaar nekkul it ci loxo ñi ngeen di yaakaar man yàlla lépp daje ci sama man yàlla lépp daje ci sama loxo kon kuy joxe kon nag kuy joxe jox ma jox ma sa bopp jox ma sa bopp moo tax ñu moo tax ñu nit dafa war a amee jikkoy garab. nit dafa war a amee koy garab. am fu mu samp dàttam. am fu mu samp dàttam. fu ko neex nag mu tàllal fa caram. fu neex nag mu tàllal fa caram. ñuy wax enracinement. ñuy wax enracinement. ak ouverture ak ouverture. ku ne sañ nga ko ku ne sañ nga ko. waaye itam waaye itam nag. tànn tànn. ñi ngay xameel. ñi ngay xameel. bokkewul ak tànn ñi ngay digaaleel. bokkewul ak tànn ñi ngay digaaleel. nee booy def nag yow koo gis digaaleeg moom. dugg ci kàmm te doo am daa mës dugg ci kàmm te kenn ku ci génn. réew mi nag. réew mi nag. ay jaami yàlla ko dëkkee. ay jaami yàlla ko dëkkee. te yàlla ku te yàlla subhaanahu wa taala ku bare yërmande la. na ci cër sax yonent bi sal ne sedd na ci cër sax yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax moom wax ak moom ni ko ni ko ci waxin ci waxin rek sa njaboot gii sa njaboot gii njaboot gu dëng lañ njaboot gu dëng lañ waaye damay nag ba nga jóg waaye damay nag ba nga jóg fi ma soog ci seen ma soog a dal ci seen kaw mu mel na yonent bi mu mel na nag yonent bi dafa ñëgg ñëggal ci xolam dafa dellusi ci xolam. yàlla dellu yàlla yàlla dellu nag ci décision am. ni ko ni ko. dootuma dal ci seen kaw dootuma dal ci seen kaw. feek feek. astaghfirullah astaghfirullah. mi ngi génn ci seen mi ngi génn ci seen gémmiñ. Ah. barakallahu waaw waaw nee loolu nag ci la bokk waaye doy na de ne ñu xaar ba guddi daa mu ab ça va sa nijaay ne ba guddi nag nee nag Sidi Bakar ne ñun ñëpp ñu bokk àndandoo rek sant yàlla nee nag cant gi nekk suñu cantu bopp nee daje bii kat daje xéewal la waaw mbooloo mu toll nii te kenn werantewul mbooloom jàmm la ne loolu lii nag Sidi Ahmed mii lañ koy sante ne waaye nag beneen cant gi ci des nag mooy fii la ñu daje woon daaw mooy fii la ñu daje woon daaw waxtaan fi waxtaan fi wax ja jub na wax ja jub na wala dëng na wala dëng na yàllaa xam yàllaa xam may nañu lañ ko ñaanoon waaye yàlla may nañu lañ ko ñaanoon de ndax pexe ndax pexe bokk ca bokk ca di fexe di fexe dund ba déwén dund ba déwén nit a ngi fexe lu nekk nit nag mi ngi fexe lu nekk waaye mënul fexe dund ba déwén waaye mënul fexe nag dund ba déwén dund ba déwén dund dund ba déwén nag moom yàlla rek moo koy may jaam kon moo ñu ko may kon yàlla moo ñu ko may te yàlla nee na te yàlla nee na comme du ngeen doy la mukk comme du ngeen doy la mukk ñàkk sax mënu la am. xam naa ñàkk sax mënu la am. mënu la bañ am. mënu la bañ am. waaye comme du ngeen doyle. waaye comme du ngeen doye. bëgg ngeen fee yàgg. bëgg ngeen fee yàgg. su ma leen ko mayee. su leen ko mayee. sant leen ma. sant leen ma. ca kaw ca kaw. ma mayaat leen dund. ma mayaat leen dund. ngeen di soox. ngeen di soox. di jàmbat ay tànk. ay tànk. waaye di teew rek looloo fi ne nag. toog kenn ku ne am nga looy jàmbat fii mu a ñi fi toog ñépp kenn ku ne am nga looy du jeex jàmbat waaye rek nañ ko fekkee rek waaye daal nañ ko fekkee rek yàlla nañ ko yàlla boole defal yàlla nañ ko yàlla boole defal ne suñu kilifa yi na nga xam ne ñoom la yàlla booleel ñu bokk ak ñoom région bi kilifa gi moom mii muy kilifa gi. mi ngi bëgg a yàgg. ne mi ngi fiy bëgg a yàgg. waaye. waaye. lu ko fi nit mën a waxal. lu ko fi nit mën a waxal. moo préfet bële. moo préfet bële. ne Sidou Bakar ne xamu ko de moom. ne te Tiwaawan nag. lu fi nit mel rek. dëgg la ñu waxtaane la. nga dégg. nag. wala nag nga bañ a dégg. waaye daal kenn waxalu leen lu jàmm ñoom daal kenn waxalu leen lu dul jàmm dal dal yar yar yiw yiw te baax te si kay Seydi Bakar ne yàlla na leen yàlla saxal gouverneur nga ne gouverneur nga kii préfet la kee maire la kii nangam nangam la kii waykatu gàmm la waaye yal na ngeen dem ba nekk président ah, wax leen amin ah kay ndax bëggu leen maire bëggu leen préfet a ngi ci tànk yi yéen a ngi ci tànk yi wax leen amin wax leen amin baax na ah wax leen amin man de nee naa amin nee na amin docteur Abdou Ba waaw docteur Abdou Ba keneen ak keneen ñoom Serigne ñoom Serigne Sène fa tabarakallah ne sunu borom subhaanahu wa taala mën na lu ne ne mënu la ne moom la yàlla di bañ a dégg ne jamono nag ku ko waxtaane ku ko waxtaane wax la ca xew wax la ca xew <laughs> waaye li ngeen dégg fii waaye li ngeen dégg fii Habib wax ko Habib wax ko nee na leen politique nee na leen ah politique ma de politique nag politigul de. fii liñ fi woowe nit ñi. liñ fi woowe nit ñi. moom lañu ñu fas yéene digaale ak ñoom. mo loolu yi la ñu fas yéene ak ñoom. ba jóge fi ba jóge fi. lu neex waaye nag nga dem ci. lu neex nag waaye nga dem ci. fii nag yàlla. fii nag yàlla. yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. te ñaar ñooñu. te ñaar ñooñu. ci diine ci diine. ku leen sédd. ku leen sédd. yàkkal ca Seydi Hadj Malick dëgg la yàkkal ca Seydi Hadj Malick maa nga jox ko bool bi mu ñëdd dëgg la maa nga jox ko bool ba mu ñëdd ndax liggéeyam ndax liggéeyam ku yekkal Cheikh na Ahmed Tijani ku yekkal Cheikh na Ahmed Tijani fàttaliku Seydi Hadj fàttaliku Cheikh Seydi Hadj Malick alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin eh, yal nañu yàlla boole nangul yàlla nañu yàlla boole nangul nangul ñu suñu cant nangul na nag suñu cant nii ñu fi dajee ren ne nii ñu fi dajee ren yàlla nañ ko fi dajewaat déwén yu bare bare bare bare bare nee te kenn ku ci ne boo dee ñëw boo dee ñëw yàlla na fekk nga yokk ba yëg ko yàlla na fekk nga yokk ba yëg ko alhamdulilahi rabbil alamin gouverneur it gouverneur firi nañu ne gouverneur firi nañu gouvernement bu bees bi sax yónneewu fi. ñoo ne dañ naan sax gouvernement bu bees bi sax yónneewu fi. waaye wax na li tax yónneewu fi. waaye nag wax na li tax yónneewu fi. waaye ñoom ñoo fi toogal bi. waaye nag ñoom nag ñoo fi toogal état bi nag. kon kon nag. gouvernement baa ngi fi. gouvernement baa ngi fi. Ah. alhamdulilah rabbil alamin. sant suñu jigéen yu baax ñu sant nag suñu jigéen yu baax yee toog ak ñi nga xam ni dañ leen di fekk si di leen jàppale ak ñi nga xam ne dañoo ñëw fekk si leen di leen jàppale sant jaamu yàlla yi fi daje sant nag jaamu yàlla yi fi daje yëpp te gën leen a jubale te ne yàlla bu Sidi Ahmed takk beneen jabar ne bu ko defee ne déglu leen ne ku bëgg a noppalu ne da def na moom yam ci benn rek tuuf xale yi nee ngeen taf seen nopp taf leen yéen ñëpp yam ci benn rek alhamdulilah ne Habib mi doon wax nag yamul ci benn fu mu toll mi ngi wut fu mu toll mi ngi wut li mu wax yëpp ne li yëpp loolu laa ci wedd loolu rek la ci wedd loolu ànd ma ci ne loolu moom ànd ceeg moom fu mu toll mi ngi wut fu mu toll mi ngi wut wax nga mucc ne ku ne wax na nag mu rek gannaaw loolu gannaaw loolu nag Habib am na lu mu fi wax Habib am na lu mu fi wax Chérif ñu ngi lay nuyu Chérif Seydou Bakar ne ñu ngi lay nuyu dañu waxoon ne qaddimu Quraysh dañu waxoon ne qaddimu Quraysh loolu loolu yi nag wax jee ñu fëkk wax jee ñu rek xëy dara eh, mel na Habib am na lu mu wax mel na Habib am na lu mu wax ne Sénégal dafa toll foo xam ni seen bëgg-bëgg dafa bari seen bëgg-bëgg dafa bari seen bëgg noflaay bare seen bëgg noflaay bare seen bëgg tur bare seen bëgg tur bare moo waral li Habib doon wax sànq moo waral li Habib doon wax sànq loolu ñuy wax ajaa loolu ñuy wax ajaa ci loolu rek laa bëgg a ñëw ne ci loolu rek déglu leen la bëgg a ñëw ne mësoon na leen fee wax ni leen tubaab yi day tubaab yi day liñ ñu indil ci ay pooj bare na lool bare na lool waaye pooj ya day waaye pooj ya day pooj rek nga ciy dégg pooj rek nga ciy dégg doo xam pooju lan doo xam nag pooju lan la xamuloo bu tan la xamoo bu tan la wallahi xamuloo bu céeli xamoo bu la waaye cuisse rek la waaye cuisse rek wax wattu leen ko wattu ko nag. ñaareel bi ñaareel bi. mooy corne-beef mooy corne ay machine koy defar. ay machine ñoo koy defar. te léeg-léeg machine ya fëkk nit. te yow yi defar corne-beef ya fëkk nit ko koy defar. moo moo la mu xañaale ko. moo la ñaale ko. boole ko yàpp boole ko yàpp ba. ñu def ci boyet. ñu def ci boyet. ni Afrique ni Afrique. léegi Afrique lekk. léegi nag. léegi nag. duwaañ ba waxoon na ma ni ma. ne duwaañ ba. waxoon na ko ni ko. romb ñu ak yàmba. ñun daal romb ñu ak yàmba. moo ñu gënal moo ñu gënal. romb ñoo ganaar romb ñoo ganaar. wax nga dëgg de. man ko ah, wax nga dëgg de. bëgg lu neex benn nit. bëgg lu neex benn nit. ba faat am réew. ba faat am réew. dara jaru te lu bone France rek ñu yónnee. te rek ñu yónnee ko Afrique. Ajaa bii mu wax. Ajaa bii nag bi si Habib Moulay doon wax léegi. ñu di ko lekk ñu di lekk léegi. boo ci def boo ko defee ci ndox. ne déglul boo ko defee ci ndox. fanaanal ko ci sa kaddir lu ñuuloon ca kaddir lu ñuuloon ca kaddir ga dana set wextal kon ku koy lekk soo wattuwul léegi sa butit xolli ko waaye luy xolli kaddir kay mën naa xolli butit wax dëgg de wax dëgg loolu nag waay waay nañu leen yem ci xorom ak poobar ak kaani doy na sëkk doy na Ajaa la tudd Ajaa ak bam ah am na beneen bi ci topp ak yi ci topp yëpp benn baaxu waaw déglu leen lan lañ koy defaree kan moo xam lan lañ koy defaree. bu ku ci ne nag mi ngi ciy coow rek di ko tëggal di ko tëggal di ko taasul di ko waaye mi ngi def musiba mi ngi def musiba de waaw ma ni ñu bàyyi ci xel nag allahu am na aja ne am na aja am na jonge am na jonge ah am na garmi am na garmi am na garmi ah ak mami am na mami am na mami ñoo ko jiitu nee jimbo ak maji ñoo fi jiitu woon kenn xamul luñ leen kenn xamul nag leen defare ñu defar di ñu jox ñuy lekk ñu nag di ñu jox ñun ñuy lekk rek moo tax léeg-léeg nga dem ci xew moo tax déglu leen léeg-léeg nga dem ci xew nit ña xew ma lekk ba suur nit ña dem ca xew ma lekk ba suur nga jékki-jékki nga jékki-jékki rek nit ña demoon ca xew ma nit ña demoon ca xew ma ñëpp lopitaan lañu fanaan ñëpp lopitaan lañu fanaan yooyu moo ko waral moo ko ak soow yii ak soow yii ñuy def ay comprimé ñuy def ay mu wayal ko ci saas yi yooyu ñuy bëgg rek wallahi wallahi waaye yow kay defal leen wutal daqaar daqaar nga def ci sa laax lekk mbaa buy te bàyyi fi soow mii ñuy defar te bàyyi ñuy defar xaw ma ardo xaw ma kii nu mu tudd bi ñuy woyee loolu am na daf ko wax loolu nee loolu sëñ Habib daf ko wax rek mu reelu mu reelu ne waaye lii sëñ Habib wax mu reelu lu am solo la kenn ku ci sa jabar duggee ci marché. nee kenn ku ci sa jabar duggee ti marché. balaa taal. balaa taal. na nga fexe ba wuutu ko gannaaw. na nga fexe ba wuutu ko gannaaw. boo ko ca fekkee. boo ko ca fekkee sàcc ko. sànni ko ci cabinet bi. xam nga dëgg de. moo gën. waaye moo gën. waaye ñun def lu naturel togg lu naturel. ne lu nit mën a xam. léeg-léeg ñu wax lu reelu. ne léeg-léeg nag ñu toog di waxtaan di wax lu reelu. ree ko ree bu boo fa jógee doo ko jox ak xam. boo fa jógee doo ko jox ak xam. waaye nag. jar naa xam. ah jar naa xam de. ku xam luy nag. waaye ku xam luy lor nag. dugg ca dugg ca. lu la ca dal lu la ca dal. yaa ko teg sa bopp. yàlla nañ ci yàlla musal. ah Sidi Bakar ñu nuyu Chérif Mamin Chérif Mamoun ñu ngi koy nuyu di di rafetlu jataayam di rafetlu nag jataayam daawul manqué ne moom Sidi Bakar ne Chérif Mamoun daawul manqué manqué wul manqué na ñëw na ci kóllëreem ci cofeelam ci góor ci góor gi ak ci njaboot ak ci njaboot Sidi Ahmada Sidi Ahmada ñu lay nuyu bu baax sa bamba ne ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziyaara di la ziyaara Sidi Sidi maa ngi lay yóbbante nuyoo ak ziyaara ci góor ga Sidi sa bamba ne ñu ngi lay yóbbante nuyoo ak ziyaara ci góor ga di nuyu sa yaay itam di nuyu sa yaay itam di nuyu xale yéen di nuyu xale yéen tabaarakallaahu bàyyiwu fa tabaarakallaahu bàyyiwu ci kenn ah, Abdoul Aziz Dieye ñu ngi koy nuyu ne mu lay Abdoul Aziz Dieye Seydou Bakar ne ñu ngi lay nuyu bu baax moom Sidi Bakar sax dafa ne woon du nuyoo njaboot gi du leen nuyu waaye mu coppati ci rek nuyu leen ne jigéen ñi itam mu coppati ci rek nuyu ci soxnaam yem ci moom rek mu yóbbaale ñëpp. moom daal boo ko nuyoo rek nuyu nga ñëpp ne xam na ne bëgg na dara daraja waaye nag ma jox ko ko rek ah? Ah, bu baax sax ah, nuyu Mouhamad Baru ne nuyu nag Mouhamad Baru si ne kooku moom dañ koy mujje jox ko cëram jox ko cëram nag moom it ci njaboot gi la bokk moom it Mouhamed Baroud Sy ci njaboot gii la bokk mën nañ ko sax bañ a tudd ne mën nañ koo sax bañ a tudd li doon jaaxal nit ñi li doon jaaxal nit ñi mooy lii xew mooy lii xew te kenn gisu ko te kenn gisu ko ci looloo doon jaaxal nit ñi looloo moo doon jaaxal nit ñi waaye ñàkk ko tudd du jaaxal waaye ñàkk ko moom du jaaxal nit ñi alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin nuy xaaj Mouhamadou Mansour Mbaye bàyyiwunu kenn ñépp ñu ngi leen di nuyu ku ñu tuddul ne ku ñu tuddul nag xam nga ni ki la tuddul xam nga ni ki la tuddul indiwu la fi indiwu la fi yàlla la fi indi yàlla mi la fi indi yàlla mi la fi indi yàlla na la yàlla tudd ca boppam su ko defee nag foofa la sa lépp di baaxe bu la ñëpp tuddee fii bu la ñëpp tuddee fii it. te yàlla tudd la yàlla tudd la. doo ca jëlee dara doo ca dara. waaye bu la kenn waaye bu kenn tuddul. yàlla tudd la te yàlla tudd la. la nga bëgg yëpp d'accord la nga bëgg yëpp d'accord. te nag te mbooloo mii ni mu toll. mbooloo mii ni mu toll. am na ci ñoo xam ni. am na ci ñoo xam ni. wutaluñ leen siis wutaluñ leen siis. wutaluñ leen place wutaluñ leen place. kenn indiwu leen ci kanam kenn leen ci kanam. waaye bu mbooloo jataay bi barkeele waaye bu jataay bi barkeele ci ñoom la ko yàlla jaarale yàlla li mu baax la lépp daf ko nëbb yàlla li mu baax la lépp daf koo nëbb kon kon nag nit a ngi ci mbooloo mi koo xam ni mooy xoromal mbooloo mi moo koy barkeel moo koy dooleel te kenn xamul kan la nag waaye yàlla def na ko fi nag lu tor na kër Cheikh Seydi Hadji Malick bu ca dara di xewee. bu fu ca dara di xewee. lépp lu koy sagal. lépp lu koy sagal. di yokk sag ba di yokk sag ba. ak taar ba ak taar ba. yàlla dina ko ci dugal. fa tabaarakallahu ni ko sëñ mu Moulay waxee ne sànq rek. ni yan bu diis la ñu amee. Ah, ah, boo xam ni boo xam ni nag. boo doyloo boo doyloo. ni diwa ma jur ni diwa ma jur. yam ca yam ca. diwoo ma jur rek nga yam diwoo jur rek nga am dara ca doo am dara ca yàlla ñi la jur ñi la jur dañu tuur seen ñax dañoo tuur seen ñax ngir jëmm yàlla ngir jëmmi yàlla ba àgg fa ñu àgg nag fa ñu àgg te di ko miim te di ko miim nag duñ ko nangu duñ ko nangu duñ ko wanewu duñ ko wanewu fii ne góor gu baax gi nekkoon fii ni mu meloon ni mu meloon ko sharia santoon. li ko sharia santoon. xaqiqa sant ko ko xaqiqa sant ko ko. moom la doxale fu mu ne. moom la doxale fu mu ne. tëdd ci diggu kër gi. ci diggu kër ku ñëw yem ci moom ku ñëw nag yem ci moom. mu taaj ñam mu taaj ñam. bokk ak ñëpp bokk ku feebar mu seeti. ku dee mu jaale. ku wasin mu ndokkeel ku mu gis. xeebul kenn. doyadalul kenn déedéet doyadalul kenn lu ko yàlla jox mu joxewaat lu ko yàlla jox nag mu joxewaat lu ko yàlla jox rek lu ko yàlla jox rek mu joxewaat sëñ bi dafa toog ca gël tàppe nee mu lay góor gi dafa toog ca gël tàppe benn waay jox ko ni enveloppe benn waay ñëw toog ci suuf puus ko benn enveloppe jox ko ko teel na sax boobu nee booba teel na sax suba teel am na ku fi toogoon nee am na nag ku fa toogoon di ko diis boppam di ko diis nag boppam poussé enveloppe bi. ba waa a ñëwee ba pousse enveloppe ba. moom it mu teg ca loxoom. moom it mu teg ca loxoom. di ko pousse ndànk di ko pousse ndànk. ba pousse ko ki ko diisoon. ba pousse ko ki ko diisoon boppam. ndekete ki ko ko joxoon gis. ndekete ki ko joxoon enveloppe bi bi gis na ko. di ko papa doo ko seet. di ko papa doo ko seet. bala nga koy jox. mu ne ko waaw moo taxoon nga jox ma ko. mu ne ko yàlla. mu ne ko yàlla xam na lu ci ne. moom ñëw na fi diis na ma moom na fi diis ma boppam. mani ko mani ko. lu fi ñëw ma jox la toogal lu fi ñëw rek ma jox la ko. waxuma ko ni ko. waxuma ko ni ko. lu fi ñëw lu fi ñëw. ma jox la ci dama ni ko lu fi ñëw ma jox la ko. lii ñëw na fi lii ñëw na fi jox naa ko. wàcc nga wàcc na tey mu laaj daa si tabax ne fii ku fi bokk ne fii kat ku fi bokk gis nga mën roy nit mën a am nag lu fi nit mën a am nag gannaaw diine bu dul jikko am dara ne diine gën a foor ca yàlla waaye waaye ji waaye nag jikko am la yàlla tagge yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon jikko jooji yàlla nañ ko yàlla yombalal mbokk yi ñu jéem a nag dagg wax ji nee na doon bëgg wax sax ci gàttal waaye gàttul nag gudd na lool fa tabaarakallah wala fay waxe noonu rek te wax te wax nag dafa doy waar ne góor ga dañ ko ni sëñ bi kaay jël waxtaan ni ñu déglu mu daal di jàng ayatul kursi mu jël rajo ba jàng ayatul kursi ñetti yoon ñetti yoon jàng ñetti salaatu fati wax ñaari xadis wax ñaari xadis dóor benn aaya dóor benn aaya daal ni man sax waruma wax man sax waruma wax dañ ma waxoon rek naa wax ngeen déglu man ko yow de bu ñu la waxoon nga wax nag moom di nga toj addina bi ñun tamit noonu la ñu mel. ne ñun tamit noonu rek la ñu mel. wax pant la wax pant la rek. boo xasee taxaw rek. dootoo xam fooy yem. dootoo xam fooy yem. dootoo xam fooy yem. waaye yal na yàlla nangu. waaye yàlla nangu. yàlla na yàlla boole sàmm wax leen amiin. yàlla bu ñu yàlla topp ci suñuy manqué manqué. suturaal na nañu yàlla suturaal eh, ndono lu diis la ndono lu diis la waaye ko am yéeney sellal yàlla jàppale la waaye am yéeney yàlla jàppale la ku jubal yàlla jàppale la ku am yéeney jubal yàlla jàppale la yàlla ko yàlla boole defal yàlla bu yaakaar tas yàlla bu sag sàggi ko ne lu jafe ci réew mi yomb na yàlla yàlla na ko yàlla yombal lu ñu ñàkk yàlla am na ko yàlla nañ ci yàlla jox lu ëpp suñu yaakaar lu diis ci ñun yàlla nañ ko yàlla woyefal lépp lu ñuy ragal yàlla ñu yàlla wan lu ko ëpp lépp lu ñuy ragal yàlla nañ ko yàlla wan lu ko ëpp kilifa yu bees yi amee réew mi kilifa yu bees yii amee réew mi yàlla na leen yàlla jàppale yàlla na leen yàlla jàppale ba yaakaaru jaam yi ci ñoom lépp euh, tegu ci yoon lépp tegu ci yoon nee dañuy wax ni avocat boo ko amee am affaire avocat ba di la layool nga di ñaanal avocat ba ñaanaloo avocat ba de yow moom sa bopp ngay ñaanal kon kon ñoom ñi yàlla teg réew mi ci seen loxo ñoom ñi yàlla teg réew mi ci seen loxo nii mu ñu bettee doxale ko ko. nii mu ñu bettee doxale ko ko. yàlla na ñu bette noonu baaxal lépp. yàlla na ñu yàlla bette baaxal lépp wax leen amin. ñu ñaan yàlla nag yàlla na yàlla dolli sutura yi. yàlla dolli jàmm yi. te boole ñu ko jullitu yàlla yépp te boole ñu ko nag ak jullitu yàlla yépp nag. ci xeetu sayyidina Muhammad yépp. ne ku feebar yàlla na nga wér ku feebar la yàlla na nga wér le yàlla na ñu mucc ci bépp lor yàlla nañ ko yàlla boole defal lu ñu wut te mu am njëriñ yàlla nañ ko yàlla yombalal lu ñu wut te mu am njëriñ yàlla nañ ko yàlla yombalal lu ñuy wut te amul njëriñ yàlla na yàlla dox suñu diggante ak moom yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi wax leen amin jàmm ji nag jàmm ji nag ko dee ñaan buñ ko dee ñaan nañ ko ñaan boole ko ak di ko dox di ko wax ak nag di ko jëfe ñaan jàmmi kese doyul nañ ko wax jëfe ko fi ñu koy doore nag mooy téye làmmiñ yi coow li bari na te kat lu yàqu làmmiñ ko yàq kon nañ leen àndandoo bokk téye làmmiñ yi nañ leen téye làmmiñ yi rafetal njort yi ak xalaat yi di wax lu baax ci sa gannaaw mbokk ragal ko gannaawam moo gën ku la wan gannaaw nga teg sa làmmiñ ci dara ki ngay teg sa làmmiñ ci deram te kat ki ngay teg sa làmmiñ ci deram alalu jaambur la alalu jaambur la jaamu yàlla la yàlla la yàllaa ko moom boo dee ayibal nag boo dee ayibal lu la neex waaye bàyyi fa la yàlla moom waaye bàyyi fa la yàlla moom nañ rafetal làmmiñ yi rafetal njort yi rafetal kaddu yi yéenante jàmm dox ko wax ko dox nag wax ko bàyyi nettali nag nettalikat boo gis nettalikat nag boo gis dëgg la mi ngi lu muy nëbb te bëggul ku ko nettali yàlla nag nee na yàlla nag nee na jamono jii ñuy dund jamono jii ñuy dund li ciy xel li ciy xel kenn mënu ko takk kenn mënu ko takk ba tax na ba tax na ku ñépp xam ku ñëpp xam wóolu ko wóolu ko yaakaar ko mu ñëw di la déey mu ñëw di la déey bu noppee bu noppee àggal ca pénc àggal ni leen sëriñ mbay nee na sëriñ mbay nee nangam nangam waa penc mi woo ko waa penc mi woo ko ni ko waaye ndax yaa wax nangam mu ne man dama ko dégg mu ne man dama ko dégg foo ko dégg ci gaañ du la wax mukk nag kuy gaañ in jaakum faasiqun bi nabain in jaakum faasiqun mag mu ragalul yàlla mag moo xam ni dafa ragalul yàlla bàyyiwul xelam ci ëllëg bàyyiwul xelam ci ëllëg ñaaw njort ñaaw njort te ñeme gàcce te ñeme gàcce in jaakum bi na bay bi na bay bu ñëwee ci yow bu ñëwee ci yow di la wax si xabaar di la wax si xabaar weer ko soo ko dencee soo ko dencee rek def ay ndax léeg-léeg nga gis rek ñoo xam ñoo bokk julleendoo gee xëy suba xëy suba kenn ku nekk kenn ku nekk dégg ci sa moroom lu tax nga jox ko catu loxo te boo ko joxee catu loxo kat boo ko joxee catu loxo. mu wax nañ dëgg mu ne ah wax nañ dëgg. kii kii. liñ doon wax ci moom dëgg la doon wax ci moom dëgg la. ndax catu loxo ndax catu loxo la ma jox. moo ne yow moo ne yow catu loxo nga ko jox. nettali la ba noppi nettali la ba noppi. ñu ne nag topp ña wax de ñu ne nag kaay na topp ña wax de. bu dee topp ña wax bu dee topp ña wax it. yow mi nettali yow lay jëkk topp laay sax. mbokk yi nag. ñu tàllal loxo yi jàng faatiha salaatul faatihi kenn ku ci ne fa nga jëm fa nga jëm yàlla na nga fa àgg ak jàmm jàmm ju ëpp nag ji nga fi indiwaale woon fa nga jëmit boo fa àggee yal na yàlla méngoo sa mbir di la ko defaral ba ba ñu dajawaat fii yàlla nañ ko yàlla boole defal bi jaari nabil mustafa sallallahu alayhi wa sallam yal na dund yomb yàlla na xéewal yomb amin yàlla na lépp barkeel ne mi ngi leen koy jotal nag ak ñaan yeeg yépp ci turu Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour ak turu Cheikh Ahmed Tijani si turu Moulay Abdoul Aziz mu wuutu ñëpp moom mi amee baatu kër gi nga xam ni moom moo waroon toog fii wax fu ko neex yónni ñu ñu demal ko fa moom lañ fi ñëwoon que tàllal leen loxo yi allahumma amin dugal ci yenn yépp ñoomit it ngeen dugal leen ci ñaan gi ku lay ñaanal da koy ñaanal ñaanal leen leen yàlla ñoom it yàlla sàmm leen wattu leen wattu seen njaboot wattu suñu njaboot wattu mbooloo mu julli ak seen njaboot ci daraje yonent yi barke Cheikh Seydi Hadji Malick faatiha salaatul faatiha sa gàmmu le 29 juin wax nga ko wax na ko dégg ngeen ko Idrissa amin nangu leen ñaan madinatul munawwar bu suñu bàyyi alxaaj Ibbu Saaxo le 28 mais ca campement Ngeexoo nangu leen ñaan amin amin leen ñaan